témoins. voilà jërëjëf qu'est-ce qu'on en ah, euh, euh, ah, parce que y a communiqué bu ñu génne ñoo wax gendarmerie mu wax jëm ci kawam bi ñu demee à la les gendarmes bi ñu ñëwee ils ont dit le contraire par rapport ak li nga xam ne moom la ñu évoqué woon ni route bi ça été barricadé dañu defoon ay jalonnement comme quoi que le président devait passer par là-bas donc euh, man je peux admettre qu'un homme qui aspire à diriger un pays am na sentiment de révolte boo xam ne wala réaction boo xam ne waruñ ko gis ci moom mais aussi par rapport ak lii nga wax ci garde à vue pour éviter abus mhm. bi nga xamante ni si les les hommes les de de grade lañ koy def mhm. est ce que du réaction boobu noonu la rendu impulsif par rapport tax mu mu doxalee ni leen damay dem ci ñii dimbali ji boobu il n'est pas il de loi bu taxaw si tali bi ni que on a reçu des di wax ni yow waroo mën dem il devait accepter ces parce que quand même a reste à la loi. ko teree woon. dafa taxaw ñu tere ko mu dëppaat. bu nga xam il n' était pas seul. Mm-hmm. am na ñu mu àndaloon. Mm-hmm. mën na taxaw wax am na ay caméraman ay ay caméra ñu ngi si moom mën na taxaw wax de Sénégal yi wax dëgg mm-hmm. man ne bëggoon naa ñëw seet si leen. bëggoon naa ñëw nemmeeku leen. mais vraiment yéen a ngi nii gendarmerie dañ ma tere mënu ma dem. kon maa ngi dellu. population Bakel dinañ ko dégg. ce serait l'idéal pour la politique classique. voilà est-ce que nag loolu moo engendré les scènes de violence yi nga xam ne tey ñu ngi koy gis ci campagne bi. gis nga quel que soit alpha. Saliou. non globalement globalement ah, laay wax foofu laay waxee. globalement laay wax ba ñu commencé président Diomaye am na discours bu mu def. ñu bëri sax ba muy génn discours bi dañu fa woon sax day renvoyer élection yi. Hmm. parce jàpp nañu waa parce que am na ñu bëri ba ñu bët jomaay di génn dañu foogoon ne day renvoyer élection yi d'ailleurs les commandes de de de panneau publicitaire yow ak waa Pastef di drainer ci masse ak vague de transhumance bi di am yëpp nga ni waa Pastef pare wu gisuma ku gisuma ku beneen parti dem Pastef in am mbooloo gisuma ko mm. mais Déthié Fall jamonoy parrainage yow yow yéen ñu bëri jàlloo leen moom jàll na waaw ah, jamono parrainage la cela veut dire que ni am nga mbooloo jamono parrainage la oui jamono parrainage différent gisuma ku jógee tey am mbooloo tey dem ci Pastef yu bale sa mbooloo parce que dëcc bu amee moom moral ak éthique boo xam ne daf ko daf ko piétiné ñu mu àndal duñ ko nangu. da nga am ñu gëm valeur ah. Mhm. am ñoo xam ne nekkuñu en premier plan ñu nekk en second plan mais am na lu ñu gëm gëm nañ seen valeur waxuma du ma wax gëm sa bopp mais gëm nañ yenn valeur yi. ba tax ni boo nekkee seen njiit nit moom moomoo leen mën nga dem mais am na ñoo xam ne mën nañu bañ loolu gisuma man ñu jógee si fi mu nekkoon. dem si si si Pastef yóbbu mbooloo suma ko. Hmm. te ful ba du Pastef amoon wala jamaay coalition jamaay bu amoon sëñ Saliou boo mën a seetlu tuuti. nga xam ne loolu. mais Ablaye Ndiaye Ngalgu bi nga bi nga clash sànq atiwaawoon gis nga ni mu arrangé masque yi. Ablaye Ndiaye Ngalgu Ablaye Ndiaye moom li mu def. waaw mais gis nga tamit mbooloo bi mu yor aussi. mais euh, xam nga xam nga booy fay ay deux mille francs ak trois mille francs. ah bon dëkk bu métti gars yi da ngay gars yi dañuy ñëw ak doole. d' accord booy fay mobilisation deux cinq cent. wala cinq mille. Ah, gis euh, ci programme bi yaa ngi ciy wax. Euh, oui. Euh, naan le poste du procureur général. waaye guddal fan waay foofu laa bëggoon a ñëw parce que tontu laajal ma ko ay ci ñëwal. et du procureur de la République. Mm-hmm. seront soumis à un vote au sein de la. magistrature pour assurer leurs indépendances mm-hmm. effectives. loolu balaa muy ñëw ci question bi. dañoo gis ne le président du parti Pastef Ousmane Sonko étant dans l'opposition mook Bassirou Diomaye fay dañ ne woon président il nomme le de la République kon damay jàpp ne président de la république dafa tey benn parti ci justice bi. le procureur rencontre au, ministre de la justice. rencontre le premier ministre et le président. le premier ministre et le président le premier ministre rencontre le président oui. foofu tey par rapport ak nga xam ne moom nga joxe. Mm-hmm. comme solution ci assemblée. Mm-hmm. c'est la meilleure des solutions. yi. madame ah. mm-hmm. ñoom ñooy faral seen bopp ñooy voter seen bopp. su boobaa dañuy détacher la le ministre de la bon pratiquement la justice sénégalaise day génn carrément ci loxo président de la république ak le ministre de la justice est-ce que aussi boole waar ci le ministre de la justice aussi sans nomination. non ñu boole waar non ministre de la justice. prérogative premier ministre la. ministre de la justice. su mënu nekk un poste élu. c'est un poste nommé par décret présidentiel. c'est le premier ministre qui propose. le président moom mooy validé. validé pour nga nekk procureur il faut nga am benn jàngat boo am kon ci benn corps la bokk kon magistrat la bokk te ñoom ñu am nga liberté dafa am solo si àdduna. la question des libertés. liberté dafa am solo si le procureur qui est le seul maître des yow délit boo mën def délit boo mën def le seul maître des poursuites mooy le procureur boo ko neexee mu ni mandat dépôt bu ko neexee mu ni demal ñibbi waaw kooku dafa war a mm-hmm. liberté. d'agir mm-hmm. liberté d'action waaye bu ñu ko fa nomee mu am patron boo xam ne moo ko fa nomee bu ko neexee bàyyi ko fa bu ko neexee dàq ko mm-hmm. mais day buy def dara mën na sóoraale patron ñu fekkee magistrat yi ñoo xool seen biir mu am vote seen biir mu am ñu bëgg nekk procureur de la République procureur général mu am vote seen biir ñu voteel ko kooku nekk procureur xam ni moom président tegu ko fi xam ni ministre tegu ko fii mm-hmm. vote moo ko fa teg. te dafa nekk pendant deux ans wala trois ans waaye dina liggéey ndax yàlla tax. xam nga am solo. am na ñoo bëgg liggéey ndax yàlla tax sax waaye dañuy bañ ñàkk seen pos ba tax na ba tax na na dañ leen di tënk. Mm-hmm. ba tax na nag bu ñu waree autosaisir pour jël dossier sax duñ ko def. Mm-hmm. ñu auto xoolal tey. jéegi jéegi saw jéegi. jéegi jéegi jóg topp nañ ko si vingt-huit millions. vingt huit millions mais am na ñoo xam ne ils ont fait pire te kenn daa am ñoo ci xam. am na waaw am na ñoo xam ni ils étaient am ay projet état fay leen xaalis réalisé wuñ ko. comme ñan Moussa Abdoulaye Sylla. Ecotra. mi mi mi di campagne mi. mi Abdoulaye Sylla mi campagne mënuma comprendre ñi ko bëgg pour ay ay affaire job or. Mhm. alors que boo demee Kédougou am na ay usines yoo xam ne ay ay ay entreprises yu fa yu fa spécialisé wu. si si dañu dañu spécialisé si jamaa lañu lañu spécialisé wu si jamaa pas si or kii dugg am na jamaa on n'en parle pas. ah comme maître Moussa Diop waxoon na fi jamaa ba jàppoon ko de. man maa ne Kédougou am na jamaa tout le monde sait Kédougou am na jamaa on n'en parle pas. ñu yoo xam ne fa la ñu lu nekkuñu seen seen spécialité du or mais jamaa la lu fay def. depuis des années ñu ngi fa depuis plus des années ñu ngi fa. Ah Ablaye Sylla il a reçu des marchés marché marché Diamniadio bi. oui cent quarante milliards. assainissement bi. assainissement bi voirie bi. oui ko ba léegi. ñu ngi si enquête pour lan la. lu tax ñoom Sonko ak ñoom Diomaye convoqué wu si loolu. nga yaakaar na fa marché milliards boo xam ne six milliards dong la exécuté. la la encaissé milliards la encaissé liggéey gendarmerie Wakaam kàddu na jam ñaari ba léegi kenn liggéeyoo ko. il n'est pas inquiété. da jàpp ne li mu àndoon ci coalition Diomaye 2024 bee tax ak yooyu yëkkati. warul pour am ku ma am day ak ku ma am bay waru ko am. bu ñu mënee topp jéggi jëpp fekkee moom moo jël xaalis na ko fay d'accord naa mu fay ko. moom moom ñëppay fay. loolu la président donc non mënuñu bàyyi. est ce que aussi tamit mais nan ngay est ce que jàppoon ni aussi li président Diomaye waxoon daf ko def boo ñëwee am loo delloo. ñu ñu ñu. nañ ko publier. ñu delloo nañ ko wax. nañ ko war a wax le peuple doit être informé. bu fekkee amuñu lu ñuy làq bu fekkee jëluñu xaalis si suuf. jub jubal jubbanti. moom moo ne na jub jubal jubbanti na leer. bu fekkee nëbbuñu dara jëluñu ay résultat bu ñoom nguur gi fi nekk. bu fekkee am na koo xam ne def na lu anormal parce que gars yi ñu yëg dossier yi. yow da nga njort ni nguur gi dafa am koppar yu muy jël ci suuf. dama ne bu fekkee amul. waaw bu fekkee ñoom war na amul. Hmm. nañu leeral lépp. ñu leeral lépp très bien. d'accord li ma bëgg a li ma bëgg a wax rek mooy par rapport ak sa jàngat ci président de la république ci ñàkk génn ci présidence conseil suprême de la magistrature bi nga xam ne waxoon na ko. Mm. te ba léegi yéew ci yàpp yu ci bi ñu ko laajee moo ne mu toog ceeg ñàkk ci toog la yee ma leen nii wii nii non muy kàddu goo xam ne wax waxeet la ndax gis nañ ne pouvoir bi fi nekk nii bañ nekkee au pouvoir ba léegi seen kàddu yu démb day waroo ak seen jëfi tey ñaare bu ñu gis ci li ngay wax léegi kaawu jéggi jóg wala ci ab Ablaye Sylla on a vu le cas de Mambo Diawo suufu Sénégal ñu bëri. mais je man xaw ma ñaata la ñaata ñaata centaine de millions laa ko jox. je suis ñu ngi tudd. Mame Boye ci suufu foncé au Sénégal. oui très rapidement tey dem na làqu ci Ousmane Sonko ànd moom. gis nañ ne Lat Diop bi nekkoon DG LONASE biñ ko génnee ci fonction wu DG LONASE topp ko. IGF topp ko UG topp ko corps de contrôle topp ko. Hmm. problème la am ak nit muy problème privé ñu ngi ko dugal ci kaso bi. jël ki nga xam ne moom moo ko remplacé woon. muy Doura Balde moom it mu ñëw fekk si Pastef mais le cas de Mame Boye Diao moom gën a tax di wax ak le cas du président Bassirou Diomaye fii ba mu ñu génn ci conseil suprême de la magistrature ñaar yooyu noo ciy jàngate. Hmm. xam nga euh, wax waxeet moom. Hmm. ku fi def Sénégalais ñu ngi lay xaar. il faut def. maa waxoon waxeet. gis nga li ko dal. loolu topp na ko ba fu mu nekk nii. fi loolu fekkoon. Macky Sall ñëw am lu bëri loo xam digg na ko dem ba si biir waxul ni maa waxoon waxeet mais daf ko jëfe lii du ma ko def ba ñëwee ba fekk moment mu def ko kon li daloon na ko gis nga mu mujjee kon nag président Diomaye bu jëlul leçon si li dal Macky Sall dal Abdoulaye Wade ba moom muy commettre les mêmes erreurs li koy xaar soreetul Sénégalais yi amatuñu patience di xaar pendant des années de des années bu ñu amee yaakaar si yow da nga leen di wan tu auras un mandat de cinq ans pour wan leen li nga mën def. ak li nga mën apporter un changement pour ce pays. mais wax wax ni moom du jikko sénégalais du jikko nit koo xam ne nit dëgg la donc moom bu waxee waxee waxe waxe xam nga lu koy xaar si sénégalais. ci kaw Mame Boye Diao. Mame Boye Diao. da indi sa dossier. ancien directeur des impôts. Mame Boye Diao ah, ancien directeur des domaines ancien ah, directeur des domaines. waaw des alal ju la encaissé foncier Sénégal. Hmm. man mii encaissé na sama xaalis. <laughs> da ngay parce que Sénégal dafa am nu mu tëddoo. Hmm. foncier Sénégal dafa am nu mu tëddoo. Hmm. suuf ju bëri yàlla wërsëg na mën am am nu tëddee boo xam ne am na ñu muy arrangé am na ñu mu arrangé wul. mais naka la ñëw foofu laay ñëw. boo jëlee foncier Sénégal boo bëggee am suuf xam nga xam nga àdduna bi dañ ñëw ba ñuy ñëw avec deux personnes Adama ak Hawa fekk fi suuf bi depuis la création des temps ba tey suuf yokkuwul. nit ñi ñoo yokk. te ba ñuy ñëw suuf amoon titre foncier amuloon dara suuf rek la woon. gor dañu doon fàq dëkk. gor dëkk la woon. ba indépendance ba tubaab bi ñëwee defar ay réew defar ay dëkk. pour bañ ay coow ay féerloo ay xuloo ñu commencé di titre suuf bi. ñooñu hmm. nag suuf bi boo ko bëggee am fii ngay jaar. donc boo ñëwee gis leen suuf boo xam ne kenn moom ko. Hmm. da ngay def da ngay def demande état des lieux. nga def demande droit réel. Hmm. boo demandee droit réel bu fekkee suuf bi dafa génn ni fii am na titre. titre bi kenn moom ko état du Sénégal moo ko moom dafa am procédure booy jaar pour ko pour nga moom ko. état du Sénégal du jaay suuf. bu lay da lay luwee bàyyi. procédure boobu nag. mi ngi commencé si urbanisme si cadastre si domaine receveur des domaines mm. dem di dem am avis ba ñëw si directeur des domaines Mame Boye Diao boo yegsee foofu mooy dafa nekk un point de non retour ndax kii di nga war a am yépp am nga ko dugal si directeur des domaines moom war ko dugal commission domaniale moom danaa la boo ma joxul cent millions du ma ko def wala boo ma joxul cinq Mame Boye Diao laay wax mm-hmm. danaa la boo ma joxul cent bu dee suuf boo xam ni buñ ko évalué boo ko doon jaay mën nga ko jaay benn trois cent quatre cent millions. danaa la waaw gis naa sa dossier am nga avis yëpp mën naa ko dugal CCOD mais nag ma jox cent millions parce que war naa jox Macky Sall cinquante soixante dix millions yi jël trente millions yi. ah Macky Macky danaa recevoir pour loolu la Mame Boye doon wax. da mm-hmm. ma jox cent million ma signal la ko te lii drame nag li bon mooy boo ko joxulee yow informé nga ko si suuf ba pare. Ah. tu l'as déjà informé. non non problème boo ko joxee da nga jox keneen. la solution léegi nooy def pour pour régler ce problème gis nga Ibrahima Pouy. xam a ci am parce que daa ni wax pourcentage. la moo fa am doon def ak ñi nga la corruption à grande échelle. li xew ci nguur gi. Mm. ci temps Macky Sall. te vraiment la corruption ak grande échelle. te nag ñëpp xam nañ ko. képp ku nekk suuf xam na ko. képp ku am kër nekk suuf xam na ko. Mm. voilà xamoo diw ndax mu signal ma wax ko ñaata laa ko jox ndax mu signal ma. affaire bi amul amul amul nañu wax li dëgg te yàlla tax. Eh boo toppee sa processus topp sa procédure pour am suuf boo ñëwee ba si directeur des domaines dana la temps nga may jox boo demee directeur des boo demee bureau directeur des domaines da ngay fekk salle d'attente bi ku fa toog yor saak saak bu nga yor xaalis moo fa nekk. ah bon <laughs> dama la wax li am rek. man damay xool sama diggante ak sama borom. c'est ça. ba may wax nit bu ma si meree si li may wax. Mhm. te mu gën ma li may wax sama diggante sama borom la dérangé ma. quand même. Mhm. ma ku mu mere si dëgg wallahi dafay jaay paay dérangé hmm. ma ñëw lu ndaw rek gis nañ fan yëpp ñu ngi la doon dégg ci problème foofu ñu avancé waaw ah, parce que dañoo laal ci suuf moo tax fan yi wuyu ngi fi ñaari plainte yoo xam ne ci gendarme la ci wàllu suuf yoo nañ la ci ba tudd ci sa soxna ak sa woyu jur hmm. loolu mun nga leeral Sénégalais yi loolu anormal la man dama entreprise boo xam ne créé naa ko depuis deux quatre-vingt-dix-huit am ba daanaka vingt vingt ay moom sax vingt deux ans quatre-vingt-dix maa amul benn entreprise xam créé naa ko en 2009. ba may créé entreprise en 98 boobu amoo jabar. célibataire la woon. Mm. ma am jabar am soxna am ay doom ma créé une autre entreprise en 2009 ma jël une part may ko sama yaay jël une part may ko sama soxna ma jël 75 pour cent yi. donc entreprise boobu boo amee suuf boo xam ne mi ngi si tur entreprise boobu nit ñi bëgg ma jaay ko si ñu dem si notaire. dem si notaire. Hmm? parce que titre foncier la aw ma droit jaay ko. fudul si notaire. ñu dem si notaire. Hmm. mu jox ma avance. mu d' accord ne day xaar lotissement bi. desal ma bu lotissement bi yéexee man daf ma daf ma benn action pénale. Hmm. donc sama yaay bi nekk si si si nekkul sax si si turu kër gi ndax turu kër gi mu ngi société bi mais dafa nekk si statut bi. ñu dem di ko convoqué. loolu la bëgg def lu neex. mais man mi am soixante quinze pour cent la loi m'autorise à engager la société. moo tax ma demee gendarmerie nee naa la major Omar Diop dangeen def lu leen neex. mais yow xam nga ni bu fekkee yow yàgg nga fi xam nga lu am nga si expérience xam nga le statut de la société ma permet et m'autorise à engager la société financièrement. kon bu ngeen convoqué man ngeen convoqué. très bien mais sama yaay wala suma jabar. bu bu leen faire mal sa diggante ak ñoom lan la ma jox euh, lotissement bu yéex euh, morcellement bu dem nañu si jox na ma avance descend na ma nee na mosalement bi dafa yéex loolu dépendre sama volonté. Mm-hmm. ñoom ba ñu xoolee ñu ma dañu ma garde à vue ñu garde à vue ma déglu leen ñu woo domaine yëpp convoqué waa domaine gis ni suuf si maa ko moom. Ah, titre foncier la maa ko moom ñu ma demal ñibbi. neexul si xool quand même. yan papier présenté woon. sama foncier laa présenté. sama droit réel. lépp loo xam ni kayit am na ko suuf am na ko si kër. Mm-hmm. laa présenté. très bien te tout ça def nañ ma quand même il a fallu ko ñu toog ba lendemain waa demal ñibbi. moo tax programme bi garde à vue beeg mandat dépôt yi. ñu mu dal bëri na Mohamed ñu mu dal bëri na. xam nga injustice baaxul. baaxul stabilité réew. Ah? Euh, justice bu bu équitable daf fi baax. bu nekk rek. dañu sañ def loo xam ni bu bu ñu ko defoon yow. dina neex. c'est pas parce nag am nga ndombo tànk. colonel la wala. général la que def lu ma ne gis nga souvent la boule la boule la la boule tourne et souvent xoolal elle tourne mi na absolument alors président euh, ce que mën nga dikkaat ci jafe-jafe président Macky Sall ak Amadou Ba c'est quoi parce que depuis péripéties euh, présidentielles yi Macky Sall jàppale na Amadou Ba non non bi dafa des demi mesure la am na woo ci suuf ne non bu leen ko jàppale ñi jàppale leen ko Amadou Ba dem ni nu ko gañee ñi ne moo jàppale ñële kenn xamul en fait ce qu'il en est diggante Amadou Ba ak président Macky c'est quoi le problème. Ah, xamul ce qu'il en est. mais am na ñoo xam ne xam na si dara. Hmm. képp kuy ministre. Hmm. yaa ma laaj nag ko waaw maa la laaj boo sañoon sax dama la question la boobu. bu te Amadou Ba vraiment baax la. mais man li ma ti xam. Hmm. su ma dëgg laa wax. président diggante Amadou Ba ak Macky Sall problème xaalis la.